voilà mbokk yi gis ngeen combat bi ni mu jeexee kenn ku ci nekk naan kii ya daan euh, surtout waa Kër la Degeer yi dégg nga sànq li mu wax alors coach combat bi lan moo ko yàggal ak lan moo ko kale lan moo ko indi ba fii. Euh, dama dem ak sama ñaari mag sama ñaari xalifa général. man mi ndaw tey dama bëgg a ubbi hospitalité bàyyi ñoom ñi kilifa yi ak doyen yi wax. waa demal mais combat bu neex la. sama gis-gis mooy départ bi booy ñaa bu ko lag daggee dóore da koy remise rapidement. waaw ñu dem ba ca biir ñii naan la xew kenn du ko saltel waaye leer na ci bëtu nit ñi ne am na lu tilim ci biir combat bi ñu dem ba ca cappaandaw ga arbitre bi rectifié ko avertir Boy Niang ah. avertissement boobu la xew la cay ñuul moo tax mu avertir Boy Niang ñu nekk à pied d'égalité ma gisaat ci biir combat bi beneen xeetu combat deuxième souffle la de Guiers teel a génn Boy Niang souffle am yéex a génn loxo yi chargé parce que dem na ba benn moment Lac de Guiers mi ngi dóor góor yaa ngi dal te Boy Niang mënut a yëkkati loxo droite am bi taxawal seetlu. Eh, mayal sama consultant yi mag <laughs> mais mais mais mais Cheikhou c'est tout fait c'est déjà résumé le coach Mame Less Less a déjà résumé ça. du dëgg combat bi noonu la demee Boy Niang dafa saturé mm-hmm. dafa mujj saturé ba pare ba pare am na am na am na mm-hmm. parce que Boy Niang dafa dafa ko bon dafa ko bon dafa mm-hmm. am Boy Niang moom moo ko toogloo. waaw xaw na laal. poids moo ko moo poids moo moo ko toogloo. kon poids bu bees euh, Boy Niang bi am na impact ci combat bi. feeñ na ci bu baax a baax baax ndax Boy Niang dafa mujj dem ba dafa chargé wu. dafa chargé dafa chargé wu. yaa ngi dégg mais en tout en tout cas en tout cas euh, lamb ju neex la woon nag. ay wax tu d'accord ou pas. Euh, waaw en tout cas man li ma gën a seetlu mooy que ne fi doon àddina doon séntu. Hmm. dañ koo gisul ci combat bi. parce que muy Lac de muy Boy ñam parce que tey boo xoolee booy ñaa forme bi mu andi. bon man foogoon naa fo forme bu mobile lay doon mais bi mu demee ba première mi-temps bi jeex deuxième mi-temps bi Boy Niang mënatul yëkkati loxoom. ndax xam naa ne poids yi mu doon jël moo tax. Hmm. mais tamit Lac de amoon na mille sens pour jéem a daan booy bi ci daan boo xamante ni woon ko ne maa la mën duma sa morom ah. te waaye tey nga fi gëj a dugg mais lan moo tax ba appliqué wu ko parce que lan moo ko tiital muy mbooloo mi nga xamante ni moom la fekk waa Pikine mobiliser ko mm. man li ma seetlu ci affaire bi loolu kese la mais en tout cas daan nag daanu ko mm. te am na lu ko yoon may mm. muy dafa moom la de guerre parce que bu demee bay constaté ci télé moom na dem jënd vidéo bi dem defi recours am mu nekk combat boo xamante ne combat bu am solo la fii la woon arène nationale alors comme ni nga ko waxee ñu ngi ci doon xaar combat bu neex boo xamante ne sax dana indi leer a leer a kenn ku ci nekk si ñaari mbër yi sa yoon daal di leer mais fu mu toll nii na waar ki nga xamante ne moom mooy la de Guiers euh, nee na moo daan dégg ngeen ko dana def recours ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang nee na daanuwul dafa dem ba ci biir téye boppam parce que ki mu doon bëreel bërewul alors mbokk téléspectateurs yi Cheikh Omar la woon ana ak équipe bu choc euh, ki nga xamante ne moom mooy Modou Khoule Danik mi nga xamante ne mu ngi ci euh, côté yi ak sunu DG Mamadou ñu ngi leen di jox dig daje très bientôt ci beneen làmb peace